doo xañee dara di jublu waaye lu mooy ngir dajaloo fa rek ngir mën a xeex ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàq diine ci ndigal Abu Amir alfasix kay kàccoor loolu nag dafa xew ci biir xare Tabuk moo tax mu andi ko ci biir ba muy nettali mbiram xare ma de allazina buur yi nga xam ne taxadoo jàpp nañ allazina gaañ yi nga xam ne ittaxadoo jàpp nañ masjidan jàkka diraaran ngir lor jàkkaay Quba mm-hmm. wa kufran ak weddi yàlla de mina munaafiqiina te mooy mm-hmm. naafiqee wala mina munaafiqiin am na si naafiqi sinfun aaxara beneen kuréel banaw tabax nañ mm-hmm. masjidan jàkka xasduum seen jubluwaay nag mudaarata masjidil Quba loranteeg lor jàkkaay Quba bana wa tabax nañ ko bi amrin ci ndigal min abi amir bu jógee ci abu amir al fasiqi kàccoor abu amir kàccoor bi mu jàkk juj de kan abu amir kaana nekkoon na moom abu amir yu xaal ñuy xooyee loo ñu abu amir arahib bi mooy ku beru di jaamu yàlla fasamaaw mu tuddee ko rasul yonent abu amir alfaasik tey kàccoor de mm-hmm. yonentu moo ko tuddee kàccoor ndax kàccoor la mm-hmm. léegi na ngi mu nekk moom jàkk jooju mm-hmm. maqilan di wàcc waaye la woo ñeel ko yàq du mu dana jublu fii ci moom malaat yi képp ku di kay meen di jógee fu moom de képp ku bokk ci moom rek bokk ci naafeq yi jàkk jooju ci ngay jullee fa la ñu dajaloo di waxtaan Fakkaana nekkoon na zahaba dem na. liyaatiye pour mu andi. bi junuudin ci ay soldaar min Qaysar jugee Qaysar. li xitaali nabi ngir xeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de. Abu Amir dafa dem ci Qaysar. pour mu xawal ko mbooloo mu. pexe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yooyu nag moo doon seen bi nga xam ne fa lañ doon dajee rek di pexeel lislaam de woowu mu Abu Amir mooy Abu Amir te rahaba nekk na labbe xabla bi'sati nabi njëkk ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wataxal la ma jàngoon na saay saay yu bëri ay borom yi xam-xam la ñu ak i borom yi dara jëre waaye kaamu dara moom ñaareel kooku du rëy moom fu mu gis dëgg di ko topp waaye borom yi daraja ya ah. borom yi xam-xam ya de wa kaana nekkoon na nag maahiran di ko ñaw mm-hmm. di ko amoon xel faa bi sa mokkoroo naa looloo ma xam-xam ya mm-hmm. faraasu ñu def ko njiit nag mm-hmm. fil madinati ci madina amoon xam-xam bu bëri te xam-xam fu mu nekk rek ah. yàlla jiital borom ah. su ko defee ci la ko waa madina def njiit de waaw fasaara mu mujj rey seen di njiit ñeel waaw lawu ñeel la ko mm-hmm. ab baawun ay topp mm-hmm. mu mujj nekk njiit nag nga xam ni taalibe bu doon tey mm-hmm. mbooloo mu bëri mu ko topp ah. yonent ñëw daal di topp yonent bi de ndax kuy gis mbaax boo dajeg yonent sallallahu alayhi wasallam xam ne fa la rawee ah. boo toppeeb sëriñ waaw yàgg sëriñ yëpp bu ngeen gisee ku leen raw da ngeen war a xam dem toppi ko moom nag nangutu topp yonent waaye mbooloo ma am nañ fulla ñoom ah. xam nañ ne lépp ci yonentu la daal di topp yonentu de faabu xadam mu daal di bañ nag am na yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam li xaasa ngir lii waxasadu maa ñaanee ko de déedéet farma jaa bam dikkee bam dikkee rasul yonentu bi sallallahu alayhi wa aslama ci la jébulu jëmee at baa yi ay toppam fa baqee mu des lay sene ku dendoo fu mu at baam ay topp ba yonentu ñëwee nag mbooloo mi ko gëmoon yëpp daal di dugg ci lislaam xamatul mbooloo nag la ko waroon mu dugg ci ndax sangeya ci jaahiliya mm-hmm. ñooy sang ci islam mm-hmm. bu ñu amee xam-xam te yàlla def na moom borom xam-xam la mm-hmm. kon bu duggoon ci islam rek mën naa bokk ci kàngaam yi ci njiit yi yàlla tànn de waaye mu rëy mbooloom moom ba ko fa dem topp yonentu de faabu xare mu bañ annabi yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xaasaa ngir lii waxasado mu añaane ko ci la bañ yonentu nag daal di añaane yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam xataa la xeebam dajeg yoman bis a rasul yonentu bi sallallahu alayhi wa wa ko daal di wax yonent ne ko maa hasa diinu ana lan mooy mbir diine alladi mi nga xam ne jiita andi nga bii ci moom ah. diine ji nga andi mooy diine lan xaala wax na moom yonentu loo ñeel abu amir ne ko diine ibrahima di diine ibrahima ji ma andi nii daal abu amir ne ko walakin waaye nag jaxalta def nga fii ci moom cheyan dara lay si nekkul fii ci diine ibrahima mm-hmm. mu ne yokk nga ci rax nga ci xaala wax na loo ñëw rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent ne ko kasabta fen nga léeg-léeg nag dafay laay wax jiitu adina bil xanafiya ci dina ju sell ji dina ju jëng walis lépp lu yàqu moo di xanafiya samxa dina jaaji yomb bay daaw bu weex lay doxaa guddeem ka naxaare haa comme bëccëgam diine ji ma andi xanafiya la loolu nag ñu bari ñu ngi koy wax rek waaye dégguñ ko xanafiya daal mooy ñi nga xam ne topp nañ yoonu Ibrahima wata bi mbirata Ibrahima xanifan Ibrahima xanif la woon mooy lan xanif boo ko bëggee xam nga maa kaana mina mushrikiin mosul bokkaale yàlla rek laa wax de dañ ci bo mboolem xeetu bokkaale loolu diina xanafiya diina xanafiya mooy diina ji nga xam ne ci janoog yàlla rek ci janoo rek ci dañu amee xol bu dal doomu aadama yi ñetti xaaj lañ am na ñoo xam ne ci àdduna lañu amee dal waradu bil hayaati dunya watmannu biha ñooñu àdduna ci lañu dalle moom lañ gërëm buñ ko xamee seen xel dal buñ ko ñàkkee rek ñu ñuy firfiri am ñoo xam ne ñoom ci tudd yàlla la ñuy daree ñun la yàlla wax ne laa bi zikri laahi tatmainu qulubu am ñoo xam ne ci janoo la ñuy daree ñooñu ñooñu ibrahima ibrahima daf ne yàlla nii kayfa tuhin moo tax xaala walam tumin xaala balaa walakin yatma'inna qalbi bi ru'yati wa yani dama hmm. bëgg sama xol dal ci gis gi ak janoo gi hmm. kon moom mu doon tudd yàlla mu doon def lépp waaye daal lay dalal xolam mooy janoo de hmm. looloy xanafiya mooy dégg nga wéetal yàlla ba say wax du a firi janoon ak biddiw ne moo di boromam janoon ak weer ne moo di janoon ak jant ne moo di boromam xam nga ne loolu amul sikk sàkk naag bokkaale la te yàlla nee na musul bokkaale de loolu Hanafi yéenuntu ne ko doon laa andi dégg yomb nag yoo xam ne lu ci jafe ko ci rax waaye daal sant nit ñi lu leer nañ guddi gi bëccëg gi benn la lislaam xam lu doon dem yéenuntu ne wax fa qaala Abu Hamid daal di ñaan nag ma ngi xalak boppam ne amaate yàlla na rey allah yàlla alkaasiba aji nar min ñun tari dan muy kuñ dàq waaye itam daa abu hamid ne ko mën ak yow ku ci waxut dëgg rek yàlla na ko a rey fekk jamono boo xam ne ñu ko daq génne ko muy dee moom rek buy dee daal yàlla na fekk ñu ngi ko génn moom rek mu daal di dee ci àllab kerte nag xaaral wax na rasul yonent bi sallallahu amin yonent ne ko amin fa sahaba mu dem na ilaa Quraysh ñu jëm Quraysh ci laa abu hamid dem Quraysh xare laxzaab yonentu dàq waa Quraysh dàq arabe de fala maa turu doo bañ leen dàqee nag fi a ahzab ci xare al ahzab mu xam ne foofu amutu doole farra ci la daw wala xekk mu yéeg bi saam yi si saam ci la daw dem saam vraiment sama ba mu jébbaloo alu saam waa saam farra daw na mina saam yi jógee saam waa saam dugg ci islam abu hamid daal dafa génn nag ndax amutu pexe de wala maa taw sata ba mu digg doomu waa tariqa yoon waa maata deena fii te faraatin ci àll tari yi dan di kuñ dàq wax yi ji wedde ba mu jógee saam di daw dem ba xaajal yoon war ak ci la ko dee ñëwal mu dee nekk kuñ dàq daal di wedde fa du nañu rob ko naag foofu kon moom mooy naakat ba foofu moo mu dee moo xam dal faasiqi kaccoor lamma kaana ba mu nekkee fii mu dati taxalu fii ci diir des ak gannaaw yi Medina bàyyi woo mu mee dama ma ngay xoo fi lu mu ci buur yi dafa mos a génn Medina di dajeeg buur yi yëpp lu mu mun i sàkku jeesan soldaar yu xaatul dana xeex ak bii ci moom arasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam de mu ngi wut mbooloo moo xam ne lam lam ci bëgg rek mooy ñu ànd ak moom mu xeex ak yonent bi arsala yónnee na nag ilal munaafiqiin ci naafiq yi dégg nga mm-hmm. ah, dégg nga an yab nu ñu tabax mm-hmm. masjidan jàkka isa ataahu bu ko dikkalee nag yéen ñaar dana ko def maa xelam yi wàcc waaye yéen wàcc fii ci moom foofu moom abou amir moom maa waag ñaan ak moom ñu mm-hmm. xitaalee rasul ngi xeex ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir ba mu génnee Medina di dajeeg yi mbooloo mu xeex ak yonente bi mm-hmm. ci la yónnee nag ci naafiq ya nekk Medina mm-hmm. ne nañ tabax jàkka jàkka yoo xam ne bu ñëwee fa lay wàcc moom ak mbooloom pour mën a xeex ak yonent bi de looloo taxoon a jug jàkk ji fa jaa mu dikkal munaafiquuna naafiq yi ila rasul jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaalo ñu ne ko nuhibbu dinañ bëgg an nab nee tabax masjidan jàkka xariban bày ji min naas ñun tey seeran yombal li don faay ñeel way lott wala moom yaane gumba yi ba ñëwee ci yonent bi ko a tabax jàkka jàkk joo xam ne danañu jege jàkk joo xam ne hmm. dana yombalal ñi duñ demati Quba fii rek la ñuy julee gumba yi dañ mën a julee si fii looloo gën a yomb ñuy dem ba masjidu Quba daf leen a sori mm-hmm. bu dee loolu xam nga loolu dara nekku ci façon na mu jot rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam an nan am ne mbir mara zahiri mi ngi ci bitteem mm-hmm. yonentu foog ne la wax daal noonu rek la demee fa tarako mu bàyyi leen de ne ngeen koo tabax mm-hmm. banaw tabax nañ masjidoom seen jàkka ja fa lamma atamu bañ matériel masjid xawla wax nañ loo ñaan ko aati kaay tu salli nga jullee fi masjidinaa fi masjidinaa suñu jàkk ji mm-hmm. na tabaraku ñu barkeelu bi salaatika sa julli mm-hmm. bañ tabaxee jàkk ji ba jàkk ji pare mm-hmm. ñu ne yonent ñëwal jullee ci jàkk ji ngir ñu barkeelu ci barkeelu dara nekku ci yonent dig leen dana ko def fa waxdu mu diggéen a rasul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baada an yarjaa gannaaw bu mu delloo min tabuk jugee tabuk ne bu ma jugee tabuk danaa ñëw jullee ji seen jàkk bu soobee yàlla vraiment raja ba mu delloo min tabuk jugee tabuk ataw dikk nañu de jëm ba tey de yonent ba mu jugee tabuk <coughs> ñu gaaw yàkkamti ñëwaat ne ko ñëwal jullee ji jàkk ji talabo sàkku nañ a yonent bi wa sallam rek fa na salam wàcc xaaji aaya yonentu bokkut ak benn kilifa diine kilifa diine mën nañ koo tegal ay nax mhm. ba dugal ko ci ay caaxaan te moom du xam dara mën nañ ko dugal sax ci lu yàq mbiram te du ko ndax pees la waaye yonentu moom mhm. moom mën nañoo lal plan ba jàpp ko mhm. waaye xibaar asamaan yi ñëw xamal ko ne ko lii ay panaa la ah. bul si tàbbi rek laa wax de loolu la wuteeg kilifa moo tax ku dul yonentu war nga am bitaanatu bu baax mooy xarit yu baax ak conseil yu baax rek laa wax de ak di déglu xalaat ak di diisoo balaa ngay dugg ci mbir bu fekkee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la ci ñëpp moom la ñuy nax ba nax ga jàpp ba nga xam ne nii tabbi rek ci des bu dul woon xibaar asamaan mu tabbi ci xibaar asamaan ñëw génne ko ca kon ku dul yonent war nañ laa mën a nax de boo xay dal la buur ci la wàcc nag ne la dina ñi nga xam ne ittaxasoo jàpp nañ mas dinañ jàkka diraaran ngir lor ay mu daaratan ngir lor li ahli masjidi Quba ñeel ñooñ masjidi ñeel ñooñ jàkkaay Quba hmm. lorante lay firi waaye lor rek la ci namm hmm. ndax lor gi ci benn côté la hmm. ba kufran ak weddi yàlla laanum ndax ñoom banawu banawu tabax nañ ko bi amril kaafiri ci ndigalu xéeféer moo tax tabax googu tabax ak kéeféer la wa tafriqan ak ngir teqale beneen moom yeen diggante way gëm ñi de allazina ñi nga xam ne yu saloona dinañ jullee bi Quba yin ci masjidi Quba ñu bëgg teqale leen bi salaati baadin si julleeg ñeneen ñi fi masjidin seen jàkka ji de mm-hmm. bëgg nañ ñuy jullee xubaa mm-hmm. ñeneen ñi ba xubaa di jullee ci seen jàkka ja mm-hmm. dégg nga bu ko defee ñu teqale julli ñu néewal leen doole fexe jaxase seen diggante de wayir saaran ak fooglu tara xuban ngir fooglu li man xaaraba ñeel ko geer ak naa laa yàlla war a suloo yonentoom ñu ñu bëgg nag mbooloo mi nga xam ne nii mu ngi ànd Abu Amir bëgg a sax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñu tatagal leen ci jàkk jooju dalal leen foofu man a ku geer ak rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ko kooku abu amir mooy abu amir de ku geer ak yonent rek geer yàlla abu amir nu dafa bëgg geer ak yàlla yàlla ne kon mu nga bëgg geer yàlla de kon ñu ngi foog li man xaaraba ñeel ko geer naa laa yàlla wa rasul ak yonent min qablu njëkk tabaxam ay xam la binaa yi tabax ga yéen bañ xamoon balaa ñu koy tabax daal mooy mboolem abu amir bu ñëwee dal fa dégg nga wala yaalifuna danañu gëñ nag ne in arad naa bëgguñ illal xusna lu mooy jëf ju rafet illal fi'latul xusna lu mooy jëf ju rafet danañ la gëñal ci yàlla ne la ñuy def lu baax rek lañ ci bëgg mu ne rifqi te mooy yërëm bi miskin ci miskin yi waa ñu néew doole ñi lañ yërëm fil matari ci taw bi wal xari ak tàngoor bi wa taw siaati ak yaatalal xalal muslimin si jullit de danañ gëñ daal leneen ta leneen tax a tabax ji ah. mooy yërëm miskin yi nga buy taw ñu mën a jege mm-hmm. waaw jullee fii de bu tàngee ñu jullee fii bañ a dem bokk baa mm-hmm. dégg nga jàkk yi tamit gën a bari ku neex rek jullee fa la gën a jege mm-hmm. loolu lañ ci jublu rek de loolu la ñuy wax waaye dañuy nar gëñ nañ fekk dañuy nar moo ta nit duñum gëñ waaw wala la muy wax waaye nam mel rek la de lam jëf la lam yéene wallaahu yàlla yashadu dana mu seere innoom nag ñoom la a way nar lañ de yàlla yàlla moom seere na ne dañuy fen fii zaalika seen gëñ googu naafiqi gën a gaaw a gëñ wa kaanoo nekkoon nañ saaloo laaj ne annabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an yusalli mu julli fii ci moom ñu ne yonentu na yow julli fa nasala laaj wàcc na ko laa taqum bul julli laa tusalli bul julli fii ci jàkk jooju abadan ba faw fexeel ba bul julli seen jàkk ja ndax jàkkaay naa feqle de farsala mu yónnee a rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamaatan mbooloo ani adi moo ñu mabbal masjida jàkk ya way ñaalu ñu def ko masbalatan mu rik sën tulqaa ñu sànni fiyaa ci moom jameel waa kuna saati mboolem tilim yi wal jéefi ak médd yi yonent ne mabb leen jàkk ja def ko sën tilim gun tilim tilim yi ak médd yi dee leen ko sànni foofu faada mu ñu mabb ko wax raqu ñu lakk ko de wa jaalu ñu def makaanu barabam kuna satan mu rik sën tulqaa ñuy sànni fiyaa ci moom al jéefa de bu ko defee nag ñu def ko mu dig sën méddi yi fanañ koy sànni ak waaw tirim yi nekkoon ci sën yi daal ñu doxal ko yóbbu foofu foofu ba xeer mu des kazaalika comme noonu xataa wasiat ba mu yaatu al madinatu madina mujj na nekk sën nag ba demee ba madina yaatu ni ñi bëgg a génn istaasana ci la di soori jaal ay góor anees ku ñu dekk fi ci jàkk jooju mm-hmm. foofu ba naw ñu tabax fiyaa ci moom mbooloo bëgg nañoo dëkk foofu ndax dëkk bi yaatu na war nañoo génn ñu daal di tabax ci jàkk jooju de wasakkanu ñu dëkk waaye wa maa wuli dañu juruñ fi ci moom mawludun xaleqatul mukk wa kulla ma xafaru saa yuñ gasee xaraja génn du xaanu saxar min taxtim seen ron de ba ñuy gas jàkk jooju pour tabax bu ñuy gas fondement yi bu ñuy gas rek waaw saxar di génn ña fa dëkk yàlla wërsëgalul ci kenn doom ndax barab bu yàlla ngañ na barab bu yàlla xarak noonu la seen jàkka jamel buur ne la masjidun jàkka aussi sat tabax nañ ay fondement buniyat tabax nañ qawaayidu ay punkam ala taqwa ci kaw ragal yàlla min awwal yawmin ci njël benn bis bi nga wàcc Medina de dégg nga wudiha teg nañ ko yow ma xalal te bis ba nga wàccee bi daari hijrati ci kër gàddaay gi te mooy Medina woo jàkk jooju mooy masjidu Quba kama fi Buxaari comme nu ñëwee ci Buxaari yonentu bam ñëwee mu ne xubaa yàlla nee na jàkk jooju dañ koo tabax ci ragal yàlla jàkk jooju na nga moo gën a yàlla minu ci jàkkaay naafiqiya an taquma nga jullee ay tusalli nga jullee fii ci moom de jullee ci xubaa moo gën a yàlla ci yow nga jullee ci ñàkk jàkk jële tekkiwul nag ne jullee ci jàkk jële yàlla na ismu tafdil dana ñëw di gënale ñaar yoo xam ne dañoo wutee tamaaman buñ ne su nga suukar moo gën a neex kaani tekkul ne kaani dafa neex lañ na mooy kaani lam xam ci weex lu ko raw suukar xam na ko ci neex de loolu lay teg ismu tafdil dana ñëw fu tekki loolu jàkk jooju dégg nga waaw la ci nekk ci xees ak ci mbon ak ci war koo sori nu ko raw la yonentu war di jege nu mu war a dawee jàkk jooju daal nu ko raw la war a jegee jàkkaay xubaa di fa jullee ji ndax jàkkaay xubaa moo xelloo ñu jullee fa de fii nekk na si jaal nooy góor moom ñoom lan saar mooy lan saar yuxibuuna danañ bëgg a ne te taxaru ñu lablu wallaahu yàlla yuxibu dana mu bëgg al mutahirina way laafiya jàkka euh, euh, masjidu xubaa waa lan saarang fa ñi nga xam ne yàlla tàggee na leen dañoo bëgg a laab yàlla day dafa bëgg ñuy laab ñu de ñu laab ñi dégg nga كن جلي جي جاك جي موغن منا ترنا نبي اندي صلى الله عليه وسلم من صلاة سجل في مسجد المنافقين سي جاك نافقي يالا نيرون تو بو جلي جي جاك نافقي فحرم المحرم الصلاة جلي في مسجد سن جاك وما دام مسجد قباء جاك قباء هذا المسجد بير جاك الذي ما خن اوسي سفون ما نكو على التقوى يالا اكو موغن يلو ان تقوم جلي في موم دي كيف يكون نكري نكي اكو دي غن ان يقوم متخوي في موم وذلك المسجد الاخر te beneen jàkk jëlee laa juusu da nga naan julli fii ci moom de waaw mu ne lool nag liy tontu mooy law kaana bu nekkoon zaalik loolu masjidan di jàkka xaqiqiyan ci dëgg-dëgg la kaana kon mu nekk a xaq di nga ne yàlla bi an taquma ci mu taxawee fii ci moom de bu doon jàkka la konoon dana yàlla yonent julli ci walakin na zaalika waaye loolu lay si nekkul bi masjidan ci jàkka xaraamun ay xaraam la salaatu julli fii ci moom barab boobu julli fa xaraam na ndax barab bu ñuy géere yàlla ak yonentoom la xam nga ne barab yu mel noonu eh, tiim fa sax daganul waaw jàppoo seen ndox yi daganul waaw waxuma la nga def ko jàkk di fa jaamu yàlla waazal masjidu fii bi dee jàkk nag mooy masjidu Quba fii nekk na si jaaroon ay góor ñoom alaan saar moo di walaan saar yooyu bon bëgg a ñu laablu saalum laaj na leen rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne xaala yonent ne xad ci yéen asanaaw tagg fi taxuri ci laab fa maa xisatukum luy seen mbir waa lan saar yéen de yàlla tagg na leen tagg ngeen di laabee ana ngeen di laabee xaaloo ñu ne yaa ci yàlla ma xamuñ seen dara illaa annahu lu may li am kaana nekkoon na danaa ñeen jiraan ay dëkkandoor mene yahudi ci yahudi wa kaana nekkoon na yax siloon di raxas at baarum seen gannaaw yi meneen xaayati buñ jugee dem duus wa kaana nekkoon na alarabu arabi nag yita taxaroon di laab lu bi hijaarati ci xeer fa jamaanaa ñun ñu dajale benn hijaarati diggante xeer mu ne eh, lansaar na ñun de xamuñ lu bees lu ñu def daal ci laab lu mooy ne daal suñu yahud yi bu ñu demaan duus dañ laan raxas seen gannaaw ak ndox ñoom noonu lañ laan def ndox rek lañ laan jëfandikoo arab yi nag ñoom xeer lañ laan raxasee seen gannaaw ñun nag ñu boole ñaar yëpp jël xeer raxas ba mu set daal di jël ndox ñun loolu la ñuy def de fa xaala mu wax rasul yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi zaalika ci loolu la leen yàlla tagee kon loolu ngeen def moo tax yàlla tag leen moo tax kuy dem duus boole xeer ak ndox def na li gën a mat hum ñoom yi tax soon dañuy jàpp ay hijaarata xeer ala azatim ci naada waaye tabiuna ñu toppale ko maa ndox madahum tagg na leen laa yàlla bi anum ci ñoom ne bi anum ci ne ñoom yuhibbun dañu bëgg ataharata laab de loolu war yàlla tagg leen ñoo alan saar ne dañoo bëgg laab mm-hmm. in uridu lislam mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh